parce que ñii ñoo tax ñii ñoo lay yokk jom ñoo lay yokk fulla ak fayda ñooy tax ba boo bëggee tertari sax ngay noo xaama taxaw dëgër ndax nun ay waalo waalo la ñu kenn du ñu jam naa ni te dañuy taxaw nag ba keroog mooy bu ñuy tombee les armes à la moo tax ma te ma jël yi nga xam ne tiitarukaay la woote laa ci mën ak wuyu point Euh, ba mu mënee dugal statut sax yàggut xale yi ñoom woon du ñu dugalee statut te journal ba dong laa statut ak émission publique SN xaw ma leneen lu ñuy statué xaw ma ko xaw ma nu ñuy statué xaw ma nu ñuy lelewee nga yem ci vingt cinq mille bi mais damay dosé mais mais mais mais Doudou yow xam nga bëri woo noonu man de sama marque bi moom mais man damay dosé euh, marque bi de ku ma ko wax ah. nga ree ba dee ah man damay man tiitaroo ma ci dugal man man nag duudu maax yow danoo yamul ndax yow maa la ëpp ay noonu bu noonu peese man ak yow fi ñu toll noon yow yaa ngi ni fexe nga góorgóorlu nga ba nekk bal perdu ci Pastef xale Pastef kenn yow hmm. yow non non ah déet yow góorgóorlu nga de keroog sa amour ci PDS waaw démb dugante nga ax lat jóob ñu ne deen waa nga fi keneen ko fi dugante woon tamit sëriñ buub waaw yow amoo noonu fenn mais man damaa bëri noon te nag sama noon yi nag lu ñuy xaar mooy ma terteri daanu mm-hmm. danaa terteri nag waaye du ma àgg teer mm-hmm. moom moo tax fi ñu toll nii ma ma ciitaru télé bi kenn doot fi attaqué ci parti socialiste ah ko cee boole doon na bu yàggee ma tëj nag duudu duudu nañ non non duudu nañ wax dëgg duudu bu yàggee duudu duudu bu ñu continuer samay xarit lañ waaye kañ nekk sa xarit ñoom yow kañ kañ sax sa xarit parti ah, socialiste eh, mun na am weekend bi lañ ma gis man xaritu ñëpp laa gis nga Sénégal fii foog ma naan ci café Sénégal fii boo fi buggee dund da nekk si xaritu ñëpp. man wax yow déggul lu Racine si wax. lu mu wax. Racine si transhumance. mais mais mais nag Racine nee moom du du contre nguur. Racine daa forcer transhumance waaye xale yi nangaguñ ko de. waaw mais bien que nag xam naa ni. Racine nga xam ne. par la force lay bokk. waaw parce que ki nga faat bee ñu ko jox du xale yi fa la ñuy fanaan. waaw. te ki faat moom Racine moo yor yëf ya. Mhm. te mooy buntu Bolloré. ah wax nga dëgg fàtte woon naa loolu biir Sénégal waaye rase na aay nag mooy buntu boloore te nag boo bëggee am door podoor tam danga ko siy boole ko raas moom conjugué na Macky Sall au passé nee na moom du contre nguur xam nga loolu tamit pourtant wax nga dëgg posture la mais mais aussi euh, euh, duuru man ak yow tamit duñ contre nguur waaw man ak yow duñ contre nguur waaw ah, contre nguur de wuurul ah non contre nguur xam nga sa problème yi nga am yëpp contre nguur moo la ko andi bàyyil contre nguur. <laughs> non yow wii ma femme d'affaires nga chef d'entreprise nga. mais man contre mais contre nguur yow bu ñuy woo waa secteur privé sax dañu naa war a woo. mais man lu ma jaaxal yow une pauvre femme sans. sans défense créer duudu waxatu ko di fay ay nit maa ngi ah, nii. fi ñu toll nii ba léegi sama salaire fayagu ma ko duudu. waaw maa ngi nii dëgg-dëgg su ma jóg gis nga ku gis sama yére bu sonn mi ma sol xam ne soo ma jógee fii maa ngi euh, te malheureusement duudu. ñii ñëw nii bokk ñoog ñu ñun ñu ñu tàmm nga xam ne léeg-léeg sama nga toog fii jël sa téléphone dof doful mel ne kuy woo kenn fekk da nga xaw a bippe waale tuuti coupé kooku woo la nga nga deedeelu ne ko man de maa ngi nii une pauvre femme sans défense j'ai un petit chèque là-bas oh. ñëwagul ne maa ngi jooy Moustapha Ba léeg-léeg nga jékki-jékki toog sama grand bu defee benn affaire nga jékki-jékki euh, euh, man xam nga nag man man yëfu nandite laay def man mm-hmm. man xam nga man man man man man lu silu sa laay def. Mm. man damay jékki-jékki ni toog jékki-jékki gis euh, grand Moustapha Ba. Mm. xam nga dafa bëgg ay chiffres. Mm. ñu wane ko fenn mu génn ay chiffres yu ngande wax ay chiffres wii kii ni ngi naan si chiffres yooyu man xam nga ay affaire chiffres xaw ma ci dara. waxe ba pare euh, euh, ma ne xale yi si saa si laay ne ko capturel ma loolu Moustapha Ba def. capturel ma nga yónnee ma ko. Mm-hmm. mu capturé yónnee ma ko dugal ma ko fii ma jël ko transféré ko ndànk. Moustapha Ba dugal ki mooy kii boobu euh, kii boobu nu ñu ko waxatee euh, si kii euh, émoticône xaw ma émoji xaw ma affaire yooyu noonu nga ne ba bi tàcc nii ma ne ko yaa mën yaa ëpp doole <laughs> yónnee ko ko xoolal mu xàq tay yuuxu woo ma si saa samay na ma mais nag loo bëgg a wax fii ma ne ko mais dama bëgg a wax ne yaa mën yaa ëpp doole mais da nga aay bii ministre des finances fu ñu koy jëlee tee mu ne ma non gis nga li ma xool daa tëj tëjaat ma la ma wax fee waxaat ma ko ma naan ko non dëgg la dëgg effectivement dëgg la dëgg la ba pare rek ma bërëxal na ko waa grand sa dage bi laxaat saar ma ma laxaat saar laax def ba mu ma mu ne ma amalo ah, lu xew man ko laxaat saar amoon naa fi benn affaire foofu hmm. ak mu téye ko nii comme ça xam naa sama kanam gi xam nga damaa rëy laam damay wax nii rek nii xam naa mu mere ma eenal ma lan laa ko def mu ma non qu'est-ce que tu racontes ma ko lolou la ma def ma ko ma ngi ni man nga xam ne yoruma dara ah TFM fm ngeema ne ñu ngi may waja a hmm salaire ba sa jëwutul ma ngi ni tok té man xam nga dama reuy mënu ma taxaw fenn fëgg benn buntu ñu may ah, xalé passef yu rew yi dama vidéo dama photo dama ah dama ko ma man ko ma ngi ni man yow une pauvre femme sans défense. mën ma no xaaral ma coupé nak xam nga ne civilisé naa. Hmm. toogaat tuuti laxaat saat ci bopom momay wo hmm. ma xogaliko ni ma taxaw na ko oui euh, ah, ma ne ko oui oui euh, ça va bien monsieur Sarr xamul la maa fa seytaane noonu ruube si suuf <laughs> oui oui ma ne ko ça ma waaw oui oui euh, mais quelque chose là ma ne ah <laughs> yor naa fa ay mbir. Hmm. yor naa fa ay mbir. mais heureusement ba sama grand baa ngi fi mu ma oui oui si vous pouvez passer là. Hmm. mais ñoo fi ñu ko jëlee te duudu. ah moom si jaaxal ah man dund ak tabaski di ñëw. man de gars yi xaw ma kenn man ma man moom mënoo ma jaaxal man. man moom sama problème mooy yow sax xam nga ni yow moom boo xamoo fa kenn sama mën nga lijjanti xam fa kenn waaye man fan laay dem man ci waa Pastef yi. ah ah man xam nga kañ laay sa xarit mooy président. sama xarit dafaa ñeme waxa. Ah. <laughs> man de sama xarit mooy premier ministre. moo téye gouvernement bi. ah man sama xarit bu ñeme wax sama xarit Ousmane Sonko mu sell mi. moo téye gouvernement bi. mais nak nañu wax dëgg na duud nag sincèrement duudu ku wax li wax lee. mais mu sell mi mais bu démé ba bisu biisoon teg Macky Sall wattu biisoon teg man nañu wax dëgg. ah ah ah, ah! bu démé ba jubóog Macky Sall da nga bëgg jubóo. non man man nga bëgguma ma mais dama bëgg. <laughs> loolu nak mun na ko dox en 5 minutes. non man bëgguma jubóo mais dama bëgg non non man bëgguma ko koy wo mu sell mi. ah kon nga yow numéro mu sell bi ni ah numéro yéen seen affaire bi taxaw na xalé tam ñu defe ne man la. Eh, eh nu mu tudd eh, Mamadou saagakat yi tiktok damay bañ ñu defe ne man maa def espéré kii dara xaw ma ci dara la yow hmm. maak mu sell mi dañ daan communiquer même ba mu nekkee prison naa toog ba léegi dootuma communiquer ak moom pardon nga nga ne même ba mu nekkee prison même ba mu nekkee prison dama daan communiquer ak moom ah bon waaw ah. mais mais est ce que changé na moom si diggante bi ma c'était quand la dernière fois que ngeen gëjee wax yéen ñaar yaa xam bi ñu waxee est ce que mën na une semaine euh, Doudou nee ko Doudou nag fii nga bokk Doudou xam nga yaa ngi nga ba sëñ boobu am na projet bu gars yi yëkkati woon nañ ba si yàgg teg ko suuf man projet non loolu mënu ko wax projet bu bu ci kaw mm. ci ci ban ci man la ci bi Walu presse waaw non walu liggéey bi rek waaw mën na leen ko suuf Mm. mu sell mu teg ko si suuf. duun am nga doole nag. noon ah. non duun nag man xaw ma la damay ànd ak yow may xamuma la sóor nag waaw mais si conseil technique. non man xam naa ne yaa ngi si xam naa ne. ndax du da pexe. te nee naa la duudu yow yow yow ba ngay kooba di wuyu boobu kooba ak wuyu amut. Mm-hmm. moo tax ma ne fi muy nii duudu yow yàgg nga taxaw euh, di bokk ci ay mbir yu baax ñuy séddale yëpp public bi nga bok te yow yam yow public do fi ñor caay nga fi lu nit ñi xamul ñu ne yow fi kër gi ya ko loolu am na nga def señ mbub jox la ay mbir ci sakado ngay wër kër presse yépp tepp ñu mais fi ni sama digganteeg sama digganteeg mu seel bi nga dox ci wala ma ne parce que ni ngay dox ci mu seel moy mooy mu seel tamit Amadou Ba génné ay fonds pour presse bi wa ma barré la ndax da ko doon classe mais ma lan laal dafa nga bañ ma da nga doon dama dang ko don class te waro ko class mu ñew fi avertir len yo adama fall ngeen konne di classe mëna len xolo ñu genné liste bi ma genné ci <laughs> mais dudu <laughs> no dudu man yaak nga ma def coup ba dañu ah. deug rek dudu yow sey sey coup ba man min nako ah, sey coup irrégulier min nako mais bi digan sama digënté mu sel mi nga xamné mu sel mi gatt gatt dina fi tok 10 ans ah. sama digënté mu sel dama bëgg nga dox ci té nañ ci doxe ay way Aïssatou bàyyi dama woo Aïssatou xam nga ma nga en direct ki mané do ma sara waxante ak Aïssatou lu mu lu mu soxla xoolal euh, euh mu ne sama digënté ak mu sell mi mhm. euh, duudu foog nga ut noo ci doxé inshallah nga ci doxé moy nga nga nga ne mu sell mi Aïssatou Diop Fall ñaari nit la mhm. man mi nga ni gis ni dédoublement de personnalité la am mhm. suma togué fi jaxalo micro bi Aïssatou Diop Fall journaliste la mais suma euh, bu bu bu micro yi fayé caméra yi fayé madame la femme d'entreprise là. Hmm. ça n'a rien à voir quand même. dañoon dëgg duuru. D'ou benn du benn mais d'ou benn parce que journaliste laa bi sama liggéey journaliste. moom def kat la man wax kat laa. dëgg la bu defee ma wax. Hmm. mais beneen côté bi nag mooy. ni ñu ñëwee ni songu ma bëgg ma asphyxier parce que loolu tam c'est euh, Cheikh Niass mi dinañ si ñëw Cheikh Niass day yuuxu nii rek mën a yuuxu tàmm yalwaan di yuuxu ak di yalwaan mais man mënumaa yuuxu mënumaa yalwaan waaye nag dañ bu ñu man je suis une pauvre femme sans défense. mu sell mii rafetul mu bëgg a <laughs> du looy ree mu sell mii rafetul mu bëgg a ñëw jël dooleem yëpp da léegi mu sell mi léegi la ah, état la de mu sell mi état la xam nga ne xajul si man moom xam na ci dara moom ndax ndax ndaxte ba Macky Sall jëlee doole état sëf ko ko attanu ko dafa terteri àgg teer mais te moom sax mu sell moom ëpp doole ndax yor na ay fans yoo xam ne ñu ngi koy jàppale mais man awma ay fans man wayuma feccuma taaxuraanuma non man négociation bi mooy damaa bëgg comme que mu sell mi am maturité

man xam naa sama digganteeg yow nar naa ñaaw lool ndax yàgg nga maa xañ bii boo ma bëggee xañ fii te lii pour dix ans la gàtt gàtt te xam nga ne euh, fi mu ne nii euh, euh, mu sell mi doole ji mu yor kenn kenn kenn waxaale wu ko. dëgg la de moo tax fi mu ne damaa bëgg nga dox sama digganteeg mu sell mi. doxal sama digganteeg mu sell mi nga ne ko na ma baal la xelu xalee ma jàpp su ma toogee si micro di wax ay wax la yow yow nag nga kaay ma xamal la. alal laa def. sa diggante dëgg dëgg ak mu sell mi kenn rek moo ko mun dox. kan. kooku mooy le président. non non le président. non defal ndànk rek. da ngay déglu. xam nga la président xam na la bu baax a baax. waaw loolu de am na. bu la recevoir na la. ni. ma ne bu la recevoirul officiellement tam recevoir na la officieusement. waaye dafa yàq rek dootu dootu bàyyi diffamation. non dama ni dun yaa ngi diffamé de. am na ñaari façon yooyu yooyu recevoir yi nit. waaw ban ak ban. am na recevoir boo xam ne da nga koy recevoir nit mu ñëw toog ngeen jàkkaarloo. Mhm. am na recevoir boo xam ne da ngay woo nit ki mu wax ngay wax muy wax. Mhm. am na recevoir boo xam ne da ngeen di wax par personne interposé <laughs> man du li nga bëgg a wax jaaxal na ma. <laughs> man kay dégguma li nga wax li nga bëgg a wax moom xam naa dama ma jàpp daal mooy Doudou yow dangaa ngaa jógtee yàq der. waa léegi. waaw waaw nga ni. moom président Diomaye. Mm. nga xam ne ñëpp xam nañ seen diggante yi ñaar. Mm. am ñu benn diggante nag. waaye dégluwul rek. noonu am ñu benn diggante. waaye da ngay déglu rek. waaw maa ngi déglu waaw. dama ne. Mm. yow président Bassirou Diomaye Faye. Mm. nga xam ni seen diggante yi ñëpp xam nañ ko umpul kenn.